tey nag dañu ñëw pour euh, valider euh, politiquement plan bi nga xam ne dañ ko tëral jëm ko ci layoo muy plaidoyer nan la ñuy def ba nga xam ne dinañ mën a am euh, xaalis bi nga xam ne dinañu mën a permettre li nga xam ne defoon nañ ko muy plan ba ñu euh, tëraloon jëmale ko ci euh, xeex malade tropicale négligée ñu mën a am en tout cas jumtuwaay mën a am aussi taxawaay ñëpp ñu jàppale ñu seen engagement mais aussi ci jàppale bi ñuy jàppale commencé ko ci autorités yi mais aussi ci euh, organisation société civile mais aussi secteur privé parce que gis nañ ne tamit euh, ñoom tamit mën nañ jàpp bu baax a baax ci xeex bi mais aussi médias yi ak euh, acteurs communautaires yi donc loolu moo tax ñu ñëw fi tey di présenter plan bi mais aussi fexe ba nga xam ne ñëpp dinañ ci jàpp ba mettre ba nga xam ne buñ koy euh, euh, euh, dérouler maanaam di ci di di fexe ba nga xam ne ñi ngi ñi ngi def ay activité jëmale ko ci PANAR bi ñu mën ay moyens nga xam ne dinañu jàppale ba ba ñu ba ñu atteindre suñu suñu objectif te objectif yi du dara du lu dul jële fi feebar yi